nan xam ni danoo nekk ci jamono yi dégg nga maanaam ju xaw a jafe nanu xam li def xam li wax rawatina gone yi yoon wi bari nay rëq-rëq ak yëngu-yëngu te dara defu ko lu dul noo ko def sëñ Touba moom moom defee mat dafee Matlabul Fawzayni la làkk Touba ba mu wër ña dëkk Touba nag ñoo ñëw dégg ca ñag ba dénga di ko jañ xale yi nañ dem jàngi ji nañ dem dégg ca daara ya nañ dem liggéey yi sëñ Tuubaa mi nga xam ne bii moom lañ yaakaar kat dafa ne fa qaddimil ilma la daa kulli amal isa aradta an tafuusa bil amal na nga jiital dégg nga maanaam xam-xam ak liggéey ci lépp looy def bu fekkente ni bëgg nga ci am résultat bu baax nañ bàyyi wax jeeg coow li yoon wi mënees naa wax ba yàqu ci waaye kenn mënu ko yàq sëñ Tuubaa ñagal na ko boppam ba noppi xale yi nañ bàyyi wax jeeg média beeg loolu bëggub xaalis ku bëggub xaalis da ngay dem nangoo jël liggéey te xam ni gaa yii leen di corrompre de nga di len jox ay million kat ku and ak ñom ci seen tedd nga fi tay ëllëg yomal xiyaam ci seen torox tangi da nga and ak ñom sëñ Tuubaa ko wax kon nak nan gëna xam suñu bop xam li nu am moy lan sëñ Fallu ma ngi déglu barki demb bande bu wax mu liñ am kenn amuko muy sëñ bi nan ko fonk tan nun yalla teral na nun ñëpp ba nopi ko ci gis dana sol mu rafet am na bu muy bu muy dawal am ay soxna ci kërëm am na top bo ñëwé nit ñëpp fërëx fërëx tok ci suuf loolu mo ëpp doole de nga manam million yuñ tak di la ko jox nit ñi nañ gore as gor nag daa war a gore lii daal mooy mbir mi nan gore te kenn ci nun koo xamante ni di dépense dégg nga dalaa jaaxarit amut kon nag lu ñuy daw bay daano rawatina dégg nga ko mel ni man am naa lu mat juróom benn fukki at yu topp dootuma ko fi nekkaat lu ma jaral dégg nga maanaam di di tilimal sëñ Touba wala di tilimal dégg nga gàkkal gàkkal deram gisuma ko fi man te ñu bari ni ma loolu ma jàpp la war a jàpp xale yi nañ dem jàngi nañ leen